waaye dellu si waat ci euh, sécurisation vote bi gis nañu sax waxtu ba muy voté woon ndaw ñi yëpp ngir ñu daal di ñëw euh, voté si euh, Fadel mu mel ni résultat yi génn ne foofu la ca Sam Notaire fi nga xam ne nag Ahmed Aïdara foofu la voté bu ñu xayma li nga xam ne moom la ñu jot rek moom mooy nombre d' inscrits toll na ci 557 nombre de votants toll ci 216 nombre de bulletins hors bureau original loolu toll na ci benn. nombre d'enveloppe yi nga xam ne fekk nañ ko ci urne yi toll na ci deux cent seize euh, lu ñu ci mën a jàpp nag ci euh, euh, ñi nga xam ne moom mooy suffrage valablement exprimé bokk gis-gis ñoom nag daal dinañuy am zéro ñi nga xam ni moom mooy coalition naataange askan wi ñoom benn rek lañu fa am coalition alternative pour une assemblée de rupture muy aar Sénégal ñoom zéro la am coalition benn Bokk Yaakaar am na 61 voix euh, coalition bunt bi ñoom euh, zéro lañu am euh, coalition des serviteurs am nañu 9 kan coalition wàllu Sénégal am na 13 yeewi askan wi am nañu 132 mu mel ni foofu le ca sàmm notaire yeewi askan wi ñoom ñoo jël raw gàddu gi ñu daal dem ba Médina itam xool suñu ndaw yi nga xam ne ñoo ñu teewal foofu allo. allo oui. waaw lu ñu mën jàpp foofu le ca Médina. alors actuellement ñu ngi euh, ba tey fi nga xamante ne mooy centre Nago Samb euh, bureau de vote numéro 3 la Bamba Fall voté ñu di ko fàttali internetu Dakar Buzz rek euh, information exclusive bi nga xamante ne jot nañu ko léegi bëggoon leen ko baaxe moo di ne rek Bamba Fall dañu ko dóor ci propre bureau de vote am mhm. yeewi askan wi ñoo ko fa mënee bu baax a baax sax parce que mhm. am nañ fi cent soixante mhm. moom moom ñoom waa Benno Bokk Yaakaar am fi soixante treize voix mënee jàngat tuuti rek ci li nga xamante ne nii jot na ko fi yëkkati ci ay kàddu ci suba ak euh, li fi am tey ci ngoon gi mooy ne euh, confiance bi mu amoon tey li xew bureau de vote am daal na koy euh, jalgati daal dina koy dëpp buñ ko mënee waxee noonu moom Bamba Fall. Mhm. Mhm. boobu bureau de vote rek moo génnagum. waaw boobu rek moo génnagum te de source de source sûre lañ ko amee parce que si ñi nga xamante ne nii ñooy observateurs yi ñoo ñu confirmer l'information bi. Mhm. mais yéen gis leen affiche bi. allo. affiche bi affiché dañ ko affiché ci bunt bi wala dañ leen koo wax noonu rek. affiché guñ ko on a eu écho de ça après ñu dem euh, au niveau des observateurs ñu daal di laajte ñoom ñu confirmer ñu ko. jërëjëf mais lu nemmeeku foofu ak par rapport ak li jot a génn foofu ndax gis ngeen fa manque sécurité wala li fa nekk dal na xel. fi mu nekk nii daal ñëpp a ngi ci biti ñoo ngi xaar force de l'ordre yi kese nekk ci biir ak ñi nga xamante ne nii ñoom la ñu dénk wàllum élection yi. Mm-hmm. d' accord kon ñu xaarandi après leneen li ñu indilaat foofu rek ñu bàyyi la ngoone. d' accord euh, si kanam rek ñu daal di waat ak moom euh, ba tey ci résultat yi foofu la ci centre bu Ahmed Aïdara foofu itam Fadel euh, gis nañu rek nombre d'électeurs inscrits toll na ci 568 nombre de votants toll na ci 244 li nga xam nag moom mooy bulletin nul zéro la. li nga xam ne moom mooy résultat yi bokk gis-gis am na fa zéro euh, naataange askan wi am na zéro waa Aar Sénégal ñoom euh, benn la ñu fa am Euh, coalition Benno Bokk Yaakaar am fa 34 euh, coalition bunt bi am nañu fa 3 euh, coalition Les Serviteurs ñoom am nañu fa 12 grande coalition Wallu Sénégal am 12 coalition Yewwi Askan Wi am 181 mu mel ne foofu yi tamit coalition Yewwi Askan Wi ñoom ñoo jël ndam li Fada dañu jël téléphone bi dellu si waat waaw ñu ngi lay nuyu. alo allo Dieynaba waaw. waa Ngone.